ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fou ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu comme ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare comme ni ñu leen ko defalee saa su nekk rek ànd ak jam jamaïcain borom jam production ñu jëm le 14 août incha allahu rabbi fële ci i Iba Mar Diop mu commencé taxawal ay combat am combat bi nag bokk na ci combat yi njëkk a taxawagun ci combat yi mu nar a tëgg le 14 août mu nar a dox ci Sibor borom Kër Massar ak Alliance Baldé borom Pikine ñoom nag dafa mel dañoo xiifante ñoom ñaar moom combat bi yi ndax ñoom ñaar dañuy drainer ful bu bëree bëri bëri bi moo tax ñu war a waxtaan ak ñoom safal ko ba mu saf sàpp commencé dama koy nuyu mu mbokk internet yëpp wax ak adversaire am ci bët maa ngi nuyu di la waaw euh, gannaaw ba ma sant yàlla julli si yenente bi maa ngi sant suma ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba euh, di nuyu suma wasila suma xarit Serigne Abdou Bara Mbacke Fallou yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko di ñaanal senegal yëpp jàmm yàgg fi di ñaanal pikin ñu am tawféex di ñaanal Lutte TV suñ borom defal leen tawféex wasalaam. di waaw Sibor <laughs> maa ngi koy bu baax. waaw <laughs> salaamaaleykum nuyu naa waa Lutte TV nuyu naa Lamine nuyu naa suma adversaire Alliance Baldé di nuyu waa jaxaay bi ma jógee Kër Massar di nuyu àdduna di sant suma sëriñ sëñ Abdou Karim di nuyu ñëpp daal waaw damay damay dolli sant yàlla bu baax nag dolli santaat yàlla bu baax dolli santaat yàlla bu baax dolli sant promoteur bi waaye nit doo dolli sant sama adversaire Alliance Baldé bon li tax ma koy sant ñëpp xam nañu làmb di doxee mais balaa moo ko sant damay sant promoteur bi muy Jamaïcain dama ko woo téléphone ñu waxtaan ma ne ko man maa choisir Alliance Baldé man maa choisir Alliance Baldé bi ma ko woowee wax ak moom barke alxuraanul karim fay la ma def pour ma bëre moom xam nga tey jii nii kii tool na foo xamante ni bëgg bëre moom dina la jaral sax nga yëkkati xaay dem jox promoteur mais barke alxuraan ak yàlla bu ma ko daan ba jamaykee dafa ma fay pour ma ñëw bëri kii waaw dama foofu laay njëkk leeralee bu ma jógee tamit di ko sant moom jëlu ma pour samay combat mais jël pour samay tour loolu tamit dama ciy sant yàlla bu baax di ko wax nag Baye bi mu nga combat <laughs> borom dëkk bi ngay bëreel borom dëkk bi mbaru askan bi barke Serigne Bamba boroom réew mi ngay bëreel <laughs> mais nag ku baax la maa ngi koy sant di ko gërëm ci geste boobu mu def. <laughs> kenn la muy alliance Baldé xale bu géwél bi sant Baldé da dëkk Pikine borom du ñu càpp du ñu soos du ñu sëpp lu mu xëccoog ñoom mu dagg man maay wax ñu déglu ma man maay wax ñu ne càmm wala ñu ne ay man waxkat bi man maay bëreeg moom daan ko barki Serigne Saliou parce que xamul lu tax may bëreeg moom daan ko. du moom rek moo bëgg a du moom rek moo bëggoon bëre ak man du siwar rek moo bëggoon bëre ak man du moom du rek moo buggoon bëre ak man ñi bëggoon bëre ak man yomb na am na benn promoteur jox nañ ko cent mille pour mbër bi jënd bloc pour bëre ak moom pour bëre ak man mais man ma choisiroon bëre ak journée jamaïcain moo tax ma jël combat bi du du loo xam ne moom mun na ma may dara parce que maa ko ay combat maa ko tam ay victoire ah, non du turam bu fekkee tur rek man maa ko ëpp kuy wax te yàlla tax bu fekkee tur rek maako ëpp fuuf téeméeri junni yoon parce que mbër yu bëri samay tur la ñuy basé wu pour jóg moo tax ñuy fay xaalis pour bëri ak man waaw mais waaw ba tey mën naa nekk xam nga ku ne ak nga li nga xam ne moom nga wax rek moom ngay gëm. dam mooy li ma la leeral foofu rek. Alliance da ngaa jox ma cër na cër ju continuer mais nag day tàng. signature bi day tàng lamb ji day tàng mais li tax ma koy jox cër mooy que li mu am ci ay combat amuma ko mais bu ma jëlee sama turoo tax alliance maa la gën a siiw du benn man bu may wax dañ may déglu carrément comprendre nga ndax du ma wax di def nii di ma wax di nekk su ma waxee dinañ ma déglu te bu ma paree ak cëm la ñuy wax mais yow heure boo toogee wax dina am ñu seeg mbale am ñu découragé nga ñëw ma la foofu nag comprendre nga mais mbiru dëkk bi ngay bëreel sa àdduna ñi nga mës a bëreel ñëpp ñi nga mës a bëreel ñëpp yaa ngi doog am combat barki sëriñ Bamba. waaw ba tey mën naa nekk su ko neexee mën ne ne maa ngi doog am combat am na si droit <laughs> mais Alliance Baldé ku ko xam bu arbitre wàccee loxo bi. <laughs> man kenn mësumaa gis combat bu ma xeexul man maa lay dàq nga daw benn mbër mësumaa dàq te ma wax la ko nga xam barke Serigne Saliou maa koy dàq mu daw. pour pour xam. li may ñaan li ñaan xam mooy lan combat bi taxaw na signé nañ ko yàlla bu kenn delloo avance. maa ngi koy ñaanal jàmm maa ngi ñaanal sama bopp jàmm ngir yàlla rek bu ñu ma woo naan ma Alliance bale delloo na avance bi ndax bu ñu fi jógee tey semaine bii ñuy dugg dina xool dina seetaan di ne ah ndax ndekete man ki ma jël nag mooy borom dëkk bi. waaw ba tey bu la neexee nga ne yaay borom dëkk bi barki Serigne Bamba dama lay lay dàq duma dama lay daan ci barke alxuraan nag. waaw xam nga am nga si droit ku xam ne. sama gëm-gëm quoi laay wax waxuma nag liy am mais sama gëm-gëm. dëgg la dama lay duma dama lay jàpp dama lay daan ci barke alxuraan sama gëm-gëm mais xam nga néew ma mooy am nag. waaw li am yàlla rek ko xam. waaw yàlla moo sañ luy dee mu génn ci luy dund. leer na kon kon li war a am yàlla rek moo ko xam. Mhm. mais man ni may waxee mooy. Mhm. li ma gëm. Mhm. mooy dama lay duma dama lay daan. dëgg la nit ñi xam nañ la du loolu nga wax sa côté nee nga yow yow yow yaay yow yow yaay ki ñuy déglu bërëg si boor nag dina tax nit ñi gën la déglu am na loo ma may li nga ma may mooy que sens bi nga ma may waaye man it xam ban sens laa lay may non wooteel ñi la waroon jàppale ñi gën la taxaw pour jàppale la ndax dama la ëpp jàppale ci côté yëpp xolal te côté boobu noonu jay mu sama bopp nag quoi affaire làmb la bataille psychologie la comprendre nga mais dama lay wax loo xamante ni moom moo am alliance semaine bi ñuy ñëw ci kàttan yàlla boo xoolaatee segg ba seggaat di nga xam xam naa am na as tuut la sax loo jot a xool moo tax nga dem takki sa njañeeg yooyu borom dëkk mi ngay bëreel kii daf ma fan barke alxuraan. xam nga Mbacke yàlla bu ma génn studio bi maa ngi koy doo gis ma ko barke alxuraanu karim pour dee sa bàmmeel. mais sa diggante yàlla dugg bi ñu la naa ko yàlla na ma daan su fekkee mës naa seetaan combat am yàlla na ma daan man lu may wax dama koy wax si preuve xaw ma ko ku dee ak sa bàmmeel mais jamaykee dafa nekk nit dafa nekk nit koo xam ne jour bu ma ko xaadim anta axee jour boobu laa ko njëkk a dégg barke alxuraanu karim jour boobu laa ko njëkk a dégg xaadim anta bu ma ko waxee ma ne ko ah yow doo promoteur comme maa ngi woon ci beneen combat bu ñu doon wax bu am ay sikki saaka dina am ak du mu am su ma dégganteeg promoteur bi nañ confirmer ma dégganteeg promoteur bi ñu waxtaan ci xel mu wax ma wax bu sell moo ko wax bu sell di ko déglu mu woowaat ma si téléphone am am ku ma booleel kooku waxtaan ak man mu ne ma dinaa woo Lamine nii la combat bi taxawee man lu may wax dama koy wax suma diggante ak yàlla biñ la waxee loolu <laughs> bëgg <laughs> la jox komba le promoteur de tous les temps waaw moom mooy fay lu kenn dul fay waay fii làmb ji dafa bëri ñoo xam ne xam nu ñu tëgee làmb dañuy woo mbër bi jox la naa ko wala ñu jël benn booy boo xam ne day fay xaalis ci xaalis boobu la ñuy génne pour jox la ñun toll nañ ci làmb foo xam ne naxanteetuñu. moo am na le 20 le 20 août. wa wa incha allah. fi mu daanale ni mooy fi ma njëkkee rek ci jamaïcain foofu laa njëkkee ci jamaïcain sant ko nekkul nekkul dërëm bu ma ko jox nekkul billet bu ñu digal nekkul dara dafa yëkkati xaalis fay ma te duma gën a gore lam ma fay man dinaa ko jaay triple am ci ay billet barke Sëriñ Bamba. te kii non loolu moom après gars yi laay bàyyi ñuy juge ak jour laa mujj te yow mi toog sax si jëm bopp yow Lamine war nga mën a xam man a kii ci wàllu mbooloo yow war nga mën a xam benn ñaar tamit bu ma fa jógee moom nee na xamuma dugg na fi jaar na fii bi biñ ko waxee si boo dafa dem YouTube seetaan ma parce que waa déglu déglul parce que dafa ne ma booy bi ay combat am bëri am bëriwul mais sama bëri man ak moom dafa ñeme sañ-sañ am na sañ-sañ moom am na fu may yóbbu ak yooyu loolu moo ko wax dégg naa ko billaahi dégg naa ko billahi dégg naa ko ci vocal. barki Serigne Saliou Mbacke man maa wax ne booy bu ñeme la sama bëre ak moom dina neex mais wallahi bu ma demee bu ma demee YouTube seetaan ko yàlla na ma daan xamul tax ma def xam daa ñeme dama dégg nu xaadim anta di ko taggee dégg ni moo euh, ni sa waxee. Euh, non moo gën musuma kaa dóor moo sam sama frère la barke Serigne Touba Mbacké su ma su indaale woon connexion dama lay woo dama koy woo appel vidéo direct mu seetaan nga xam ne direct li may wax dafa am preuve su ma frère la Sankara mbay suma ma xarit la yàlla moo def loolu du dara nag du nuyu Sénégal yëpp non jàppale moom ku ne alliance Baldé ma ëpp jàppale da wax la neex alliance Baldé bu ñu may ko ko jënd oto may ko ay jàppale rek waaw loolu ay deuxième la titi moo koy jàppale. ak non xaas sama sama père sama xarit la. wallaahi sama la. xaas ma lay jàppale léegi téléphone ne ko maa ngi dem signature ba. man man lay jàppale te su ma jógee fii mun naa jaar këram de. waaw est-ce que xam ka këram yow sax fii. këram man ngay ma ndog ma ndogoo ma xam nga. waxuma këram bi muy yeewoo de këram fii nii nii soriwu fi de. waaw yow da ngaa baax këram yëpp laa. fi biram nekk nii est-ce que xam nga ko. këram yëpp xam Fall maa la gën a xam xaas de. <laughs> waaw maa la gën a xam xaas xaas TV yow. soriwu fi de Fall ne <laughs> ki maa gën a maa gën a xam Ablaye Diop xaas maa ko gën a bokk ci njaboot Ablaye Diop xaas te di nga ne di nga ne waxoon naa la ko nag. loolu nag moo jaral sama premier combat sama premier combat dama ma indil adversaire boo xam ne trois combats la bëre man yàlla dafa ma natoo loolu sama tur moo ma moo ma jiitu trois combats la bëre def trois victoire ci man la jëlee defet dañoo xeex trois fois laa ko yóbbu ardo barke alxuraanul karim trois fois laa ko yóbbu ardo moomu sut moomu doole foofu trois fois laa ko yóbbu ardo dañoo bëri ba temps jeex kii bugut buguma sax yóbbu ardo yóbbu ko ardo xam nga lu tax dafa ma jox cër xam nga maanaam sens bi ma may ak yooyu quoi alliance Baldé daal dama bëgg yàlla kàttanal ma suturaal ma bu arbitre mais prix ba wàccee loxo xamul tax day bëri xeex ma xeex jàpp ko daan ko day teg xel li muy def yëpp day teg xel barki sëñ Bamba musul xeex day bëre si bu ñëwee bu ñëwee dëggal boppam di xees nga gis xeex bu neex. waaw ndax ñaari xeexkat a daje. foofu nangu naa ñaari xeexkat a daje nangu naa nangu naa. bu saf saf. ñaari xeexkat a daje. dóor dóor mu daanu sax mën naa ci làmb ji. la mee kii kaaw kat kaaw laa am. maa dóor saaka jor mu daanu. maa dóor luus mu daanu. maa dóor dund mu daanu. ma barki seriñ Bamba. maa dóor bébé saaka jor esaan njaareem lamb banlieue kat kaaw laa am. non saa kajoor laa daan saa kajoor 2 lamb ñaar yooyu yëpp ñaam quatre personnes yëpp géejawaay déggoo ma ne siège laa teg esaat géejawaay amul mbër buy génn foofu benn defet benn defet laa fa am muy macca kenn du génnaat daam dañ koy yónni nag xam nga loolu barki sëñ Bamba dañ koy yónni <laughs> téere laa lay wax xam nga kon su ma la nee kii dafa maa seetaan ama su ma la kii daa dem seetaan ma te moom dafa waat nee na bu fekkee demul YouTube seetaan ma yàlla bu mu daan nee na bu dee demul YouTube seetaan ma yàlla bu mu daan te léegi toog na nee na dañ maa yónni xam naa fi muy waxee bu baax barke Serigne Saliou Mbacké Alioune Baldé yàlla ma yàlla kàttanal ma daan la <laughs> moom laaj ko non non moom laaj ko mu wax déggoo mën a la géejawaay siège ñoom ñuy ñoom ñi nga xam ne carrière woon nañ association Hann Daniel Alliance. léegi ku seen président moo ko yónni. ku xam naa ne Kër Masar dëkk. waaw mais daam copain Géejawaay. kan nga ma wax laa léegi nan la xamee loolu. fii moom fu mu ne dafa daan boppam bopp rek dafa wàdde. dara dara dara nee na bu fekkee seetaan numéro yàlla na daan boppam. bu fekkee dem naa YouTube seetaan ko moom yàlla na léegi nan la xamee loolu. moom nan la xamee ni man Géejawaay laa dëkkoon jógee fa am fa copain am fa lépp. géejawaay laa dëkkoon Medina Gunaas laa juddoo kii damaa xam fi muy wax baax <laughs> Lamine damaa xam li muy wax baax li tax ma jël combat ne dafa bari li tax ma jël combat dafa bari gaynde dama laa bëgg wax rek. yaa ngi doo ko wax nag li tax mu jël combat dafa bari. man maa leen jaaxal. ñoom ñooñu. ñoom ñooñu maa leen jaaxal. tudd ma tur kenn. parce que xamul tax du ma tur tur kenn. du ma kenn maa moom la. non tudd gaaruwaale lan laay dox di gaaruwaale man góor yàlla bu toll man Baye Fall xaw ma gaynam dafa ne ko am nga gayn géejawaay. gayn ay gayn mais yow la war a du ma xool. ba xam ah waaw la war a du ma xool quoi moom yow rek lay xool gayn xamu nu mu demee noonu. pour ma ragal bu la neexee mun non bul wax ragal bul teel a indi ragal. man tapet la non non non bul nax. bu arbitre soufflé. Mhm. man maay bëre. Mhm. man maay xeex. Mhm. man maay yàlla na ma dimbali ma daan la. yow xoolal bëreel. xeexal dumal mais man yàlla ma yàlla kattanal ma daan la dem ñibbi. xam nga ku nekk ku nekk li nga li nga sañ ngay wax mais yàlla ñu yàlla mooy wér ak wérle defal la wér nag dama laa bëgg mu defal la wér nga am bañ a bañ a bañ am benn gàllankoor. parce que Serigne Bamba moom laa lay ñaanal au fond du cœur. waaw mooy li ma la njëkk a ñaanal rek man it. mun na ko yàlla na ko def bugguma nga ñëw làmb jee da am sikki saaka dama bugg nga wér. Mhm. am jàmm. Mhm. nekk ci forme. Mhm. ñu xeex bëre ñu xam ne ay xale lañ war nañoo dañoo war a bëre war a xeex. allahumma sama diggante man a yow ci la ñuy xam ne si war mbër la barke Serigne Saliou euh, waaw di tàggatoo rek nag di wax ni combat bi combat àdduna la le 14 août incha allahu rabbi di ci woo waa jaxaay bi may yeewoo ci kaw ba ci suuf paa yeeg maire yeeg ñëpp woo naa leen ci rawatina nag 100 pour cent jaxaay bi di woon nag suma xarit boo xamante ni woowu ma ko ci làmb ji mais dama koy gërëm ngir man ak moom liggéey bi ñu ànd di liggéey muy Sele Silla suma xarit la suma beau-frère la maa ngi moom dund nañ lu ne ci àdduna ci wàllu liggéey mu rafet di depuis boobu ba léegi suma mag la suma xarit la su ma defee dëng-dëng mu woo ma yeddaat ma woo naa ko ci combat bi dès le début bio yi génn na di ci woo ñëpp di ci woo nag sama papa suma xarit suma coach king maanaam moom du école de lutte Boy Seye maanaam moom yàgg na di ci woo coach Baara waa école de lutte Beusé gars yi di ci woo ñëpp di woo jaxaay un jaxaay de citizen numéro pénitence Mam Dior di woo waa Dubaï di woo sama grand frère yëpp sama famille bi samay dombaay sama mag yi ma bokkal papa ñëpp maa leen di woo di woo Titi woo ko ci combat bi di woo Waly Seck Arma ji sa lamb la képp kuy faramaareen nag kuy faramaareen njoogu may ngudu Amina di woo fifty fifty maa ko ci woo képp kuy faramaareen bokk waaw fifty cent bu mag bi ak fifty bii fifty yi garde rapporté waali ah di woo Ndiogu Mbaye di woo ñëpp Faramareen moom bàyyiwuma kenn Pawlish Pawlish Mbaye sama xarit Pawlish mbay woo naa la ci combat bi waaw woo naa ci ñëpp daal woo naa ci àdduna waaw di sant BC2 di ko gërëm suma xarit suma lépp moom mooy lépp moom. waaw di woo suma waa famille surtout suma mbokk fu ma côté yaay Saloum suma côté papa Saloum. di leen woo ci combat bu baax di woo waa Pikine surtout suma grand Ama Baldé Alaaji Mbay ñu ngi ko ci woo bu baax a baax suma mag Batista Batista suma xarit suma mag ah Batista suma mag suma xarit Baye bi di ko di ko woo ci combat bi xam nga di woo waa Pikine yëpp di woo l'international Assane Diossi ma bool Pikine yow doo bàyyi mu bëri kii kii di woo Fada Love Paco Jason suma xarit bi di woo Bibisto di woo Sambuleen l'international di woo suma gaay yëpp ñu si Amadou Camara di woo suma waa fami côté Njaga Dan Baye Fall Mbaye Diop di woo bu baax a baax baax Fada Love Fada Love combat bi sa combat la Paco Jason combat bi sa combat la suma papa Ablaye Diop xaas combat bi sa combat la Souleymane Ndéné Ndiaye combat bi sa combat la di woo waa Pikine yëpp yëpp yëpp di woo docteur Pikine nag xam ne faj na dofi faj dofi dofoon yëpp Thierno Ndomba di ko woo Isaaxa Diop maire pikin Est maa ngi koy woo bu baax suma papa Ousmane Mbaye APR Ndiaga Diop Malal Diallo Ablaye Timbo Pikine yëpp maa leen woo ci komba bi man man li gën a ndaw lu ma jàppalee lu gën a ndaw laa la wax 500 laay laal lu gën a ndaw komba bi passé may nañ ma 6 millions oto bi gaare bu ma indaale waa moom ma si six millions l'international moo ma jëndal oto moo jënd oto bi gaare mu indi si bunt bi moo ma ko may muy Assane l'international maa ngi koy siyaare bu baax Gana Gueye démb waaw am na loo wax lenter l'international am na loo wax démb léegi nag combat bàyyi nii su combat la bugguma pare fii Sénégal bariwul nag mais dama bëgg a dem préparer ñëwaat te loolu loolu loolu loolu ci sa loxo laa koy bàyyi bàyyi faal bi waaw jàmm ju bari rek si yow waaw woote ne moom neen day dem fële mais man sama sama mag xam ne Jool sama turandoo Jibril Jool depuis Paris bëgg naa dem Paris def fa même bu dee benn 15 jours pare combat bi ñibbisiwaat. ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior mi ta ndaw ñi dinañ ko ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ne dina fa jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante wulli ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu